Eh. ok attachez vos ceintures immédiatement non astafurlah détachez vos ceintures immédiatement déta détachez vos ceintures damaa juum de te actualité yi bariwul li gën a fëcc cukkeli xibaar yi Aline Cissé dëkk yéen a kaay xëy fësal ni bu fekkee da ngaa nekkoon congé man nga faa jaaree maanaam retraité parce que nag wax dëgg yàlla ay bii problème mu bii la Sénégal amoon te bii yaa ngi dugg lii la lii la lii la yéen a kaay xëy fësal. waaw ah, nee na maanaam boo bëggee dégg-dëgg ñun problème bu bii lañ amoon te bii yaa ngi dugg bu fekkee da ngaa nekk congé wax dëgg yàlla euh, retraite anticipée vous êtes wax dëgg yàlla del wax madame bu lay toggalee omelette ay petit pois ay mburoog ndambe ngay toog di seetaan marché bi bëggatun laa gis stade lii la dëkk yéen a kaay xëy fësal détachez vos ceintures immédiatement te jërul takk ceinture de y a pas d'actualité intéressant sauf le ministre de l'intérieur talaxlaxi na dajj dajj layi layi dem ba Bakel waa xayma yaa ngi dem de ak dund bi ma ne ko ci xayma yeeg dund yi wax dëgg yàlla bàyyi ministre de l'intérieur ma nga noone di ko yóbbu fa fecca diwaanu Bakel pourquoi le ministre est en de envoyer les xayma et le dund là-bas à Bakel parce que le fleuve a offensé la population a occupé tous les maisons kukurise yaa xam bàyyi farba ngom yee ci yàbbi nee naa yaay ma ngay jongante nee na foofee ca diwaanu Bakel wax dëgg yàlla ak village yu ko wër fleuve yi seen euh, gox yeeg gox goxaan yi dinaa leen jox ku ci ah waa xanaa xanaa xanaa xanaa eh, bàyyi gis daa dem conseil yow nen def ak coono amariko ah, am naa dee ku fi sàccoon ay milliards nee naa yaay ma ngi koy dimbalee waa village ya nekk ca diwaanu Bakel nee na kër yi nga xamante ni nangu nañ ko man far ba Ngom kër gu ci nekk maa la yoreel 500000 mbaa 1 million Baye Farba nee na lim jëloon a sàcc dina ci dimbali waa Bakel waaw ah, loolu sax tare na xanaa boo sàccee sax parfois sax ah, ab sàcc day la day yéwén <laughs> waaye sàcc denc lii kay tare na sax boo sàccee pare delloowaat ko ci population bi sax baax na. loolu sax tane na waaye sàcc denc sàcc gas suul far ba nee na diwaanu Bakel na leen jàppale wax dëgg yàlla kër gu nekk 500000 ba 1 million waaw lii sax tane na sax ah am déet lii tane na sax ab sàcc day yéwén ah ab sàcc daal day yéwén am ngeen jàmm le ex de la nation Baye Macky Sall occupé tina réseaux sociaux yi barke yow mal kii soof na nag mbaa kenn yebu la Baye Aly soof nga nag soof nga de. waaw ah, Baye Macky yow mënoo bàyyi sa yi ngay audio nii boo ñimee tax da ñëw yow sa audio yi pour lan la Baye Macky Sall la nga jàmm mbaa kenn yebu la sa vocal yi gudd na waaye ah waaye vocal yi na del wàññi sa vocal yi ah toog ca pale ba caméra yi tiim la ay millions de journalistes tiim la ngay wax di ak di nappe di guux ay lex waxa wala du ma ko ko def du ko def te yaa toog fa ca Europe xaw ma di nous sànnee audio nous sommes très fatigués dans votre audio on n'a pas de connexion pour télécharger les audio ah soof nga trop boo dee ñëw ñëwal waay te bàyyi yow looy looy looy yëglu waaye ñëwal waay ñëwal waay chambre neuf instant bi dégg naa gars yi vidé nañ ko sax naa def ak coono Baye Macky Sall nee na moom Ousmane Sonko li mu waxoon ci maanaam euh, euh, la falsification des dossiers ici au Sénégal moom Macky Sall nee na loolu amul. ma ne ko ca vocalal waa FM ba pare waa FM neen da ngaa falsifié ab sàcc nga waa FM nee na li nga leb kay wax dëgg yàlla ba leb dee leb ba tey mosu ñoo gis ku ne mën a lebe. la ma cay dolli man Ali Sène alliance Ali booba li ma liggéey ci réew moomee di senegaal wax dëgg yàlla jërul wër képp koo xam ne bëgg ngaa xam lan laa liggéey ci biir senegaal génnal doxantu li ma liggéey ci kenn du ko jeex ma ne ko loolu de wax dëgg yàlla dëgg la. ndax ba nga faloo ci pouvoir armée yi Daaru Xuddoos sax ci lañ ko yokkee ba nga faloo ci pouvoir armée yi Touba ya ca la feese ñu ubbi yeneen armeel ba nga faloo ci pouvoir Ziguinchor armeel ya fa nekkoon fees na ban tëj ko ubbi yeneen armeel dëgg yàlla li nga liggéey ci réew mi kenn mësu koo liggéey félicitation bay Ali Sène yëglu bi nag wax dëgg yàlla mi ngi ñuy bëgg a soof ndax Baye Macky nee na bientôt je serai au andak ak waa APR yi curux curux yi dajj dajj ci biir campagne ji waaw nee daa bëgg a doon député nee na daa bëgg doon député de ah kon looloo tax ngeen jël seen fiis yi espèce humaine yi daat koy nuróole ak espèce humaine yi Baye Sonko waaye na yàlla dañoo dimbali ba ki nga xam ni moo di Baye Sonko kenn du ko jaawale ci mim réew sunu maam yi maamaati maam yi sax xam nan Baye Sonko kon fii bu ñu nureet teewul ndaare ngeen jël ci fair ku korise yaa xam nga insister la ñuus am nga jàmm e Baye Alassane Sall lu mu wax yow Thierno Alassane Sall naa def ak coono Baye Thierno Alassane Sall lu baare comme lu wax waaye dëgg am nga jàmm ko ci bopp bi mel ni teereb niil ko ci bopp bu mel ni tool bu borom amul lum ca def foofu maanaam sa karaw rek am nga am nga voilà ñu ni woon amul wax dëgg yàlla dellu nan waxtaan seen biir ni si projet am na waaye nag projet bi suñu projet la waaw ñoom neen projet bi seen projet la <laughs> lu sotti am borom rek yéen a mën a fen lu sotti am borom rek waaw ñu ni woon amul désormais léegi d'accord na nee na si am na waaye nag projet bi seen projet la man man xëri ma ne leen làkkum projet kum wala ya projet làkkum projet kum wala ya projet laa la wax projet wàññi ne ni baxal daal amoon ngeen ko seen projet ne ni baxal la bu ngeen demee nag ba gis Baye Diomaye présenté projet boo xam ni macha allah Baye Macron sax da cee tiit di projet bi Baye Macron mi ngi toog naan yàlla bu mu sotti waaye ŋàppuj de eh dina sotti de am nan or am nan zirgon am nan gaz am nan phosphate yàlla man na ko de waaw mhm. nañ def coono mani waaw waaw miin miin bi miin bi may dégg ay eh, dëkk dëkk la dëkku daaru bi waaye dëkku làmmiñu daaru nu tudd yow yee yee yee waaye sikóor yi la waaye sikóor yi du sikóor daaru musli <laughs> daaru musli moo tax maam borom day ree rek xoole ko ci ginnaaw mi ngi ree rek daaru musli am na fa soit yow <laughs> moo tax maam borom day ree rek maam borom dëru day ree rek daa Daaru Muxti am na phosphate yow bientôt Daaru Muxti dinañ fa installé mine waaw eh pour phosphate nii Daaru Muxti am na phosphate ah am na phosphate de waaye l'histoire de phosphate au Sénégal man xarit naa ci yooyu yàbbi en tant que minois maanaam pour juste xamal leen rek maanaam euh, Sénégal or sax la ñuy xaw a seet te am na fi or la ñuy xaw a seet quoi di ko wër mais phosphate ak gaz phosphate ak gaz non képp kuy kuy noyee Sénégal nag moom liir bi gën a tuuti ci ndeyam sax xam na ni phosphate ak gaz ñun ci leen dëkk ci kaw phosphate ak gaz la Sénégal toog Sénégal fépp am fépp am phosphate moom kay problème bi mooy ñu dëkk ba pare taxawuñu ñu leen a yëkkatee gas ko rek waaye phosphate non phosphate ñun ñun phosphate ci lañ dëkk phosphate ci lañ dëkk da ngeen a mën da ngeen a bariwul lu ngeen seetlu rek waaye bu bu bu tàngoor dikkee bu tàngoor dikkee ñu ne ah temps yi réew mi tàng na de Sénégal bokk na ci réew yi gën a tàng ah parce que y a des gaz l'histoire de gaz ça peut de tàngoor mhm. l'histoire de phosphate ça peut créer de inondation scientifiquement nag dëkk bu la ëpp inondation moo la ëpp phosphate parce que phosphate du naan ndox ndox du pénétrer phosphate waaw moo tax suuf si bu tawee suuf si day naan ba fa mën a yem rek daal di bàyyi li ci des ci kaw parce que phosphate ndox du ko pénétrer. Mhm. l'histoire de phosphate ah pour xamal leen rek inondation yi bari yi ñu la jël yow <laughs> inondation yi ngeen di gis nii phosphate ñu la jël di y'a beaucoup de phosphate dans ce pays ku corriger yaa xam dañ ko exploité wul rek dañ ko exploité wul rek. man sama néeg damay tot tëdd ba xaaju guddi pétrole di ma xeeñ nooy tëdd sama néeg ba quatre heures du matin pétrole di ma xeeñ rek <laughs> y'a beaucoup de ressources dans ce ku corriger yaa xam la science élevée lii moo jotoon a gën a euh, fës ci cukkeeli xibaar yi leen jox dig daje ba ëllëg incha allahu rabbi ku corriger nag yaa xam ah ñu bàyyi ci xel yéen ñi nga xam yàlla nattoo corriger ku corriger sa bopp am ngeen jàmm ok